voilà baik. yi comme ni ya gisee rasul yaa ñëw noonu muy def entrain ci li nga xam ne mooy mariage royal bi nga xam ni madame euh, tey kenn xamul kan moo teg li nga xam yaa Awa waaye gars ci nekk yaa ngi laaj kan mooy Tey madame Tey ah wala ñu xaar mu wàcc nañu nañu ay leeral ci li ñu mel moom yaa Awa Rassoul ñooñu laaj kan moo ñu tëddee waaye dégg nañu naan la ko jox comme comme yokk oto yooyu noonu yëpp dina ko leeral incha allah rabi ci kanamee léegi léegi kon gars yi yéen a ngi gisandoo noonu ñu bàyyi bi cortège bi dox jëm ci li nga xam ne mooy euh, bâche bi ci euh, mariage bi nga xam ne euh, nga xam ne mooy madame tey di yaa awar suy tey moo ko woote kon mu ngi noog ñëpp daw na ñu ko yaa awar a suul je vous rappelle que tey Mabor c'est kenn doon ko présenté ci bile euh, euh, milieu di milieu showbiz kon mu ngi noonu Range Rover bi gaare na dañuy xaar mu ngi yi ñu koy xaar mu wàcc fekk nañ ko ci Range Rover bi dégg ko caméra yi xool yaa awa rasul madame tey ba tey kenn xamagul tey bi nag kan la mais si kanam léegi du ñak moom mu andi ci ay leeral waaye laata loolu ñu dital leen li nga entrée explosive bi ci biir mariage royal bi nga xam ne euh, yaa Awa Rassoul moo woote fii ci Rufisque ça sera un mariage royal exceptionnel dara du leen ci rëcc ndax Alburaax TV mu ngi fii coow li mu ngi fii bii pro mu ngi fii ah, Namaz elin, bugün namaz. Ve las Malvinas, se mueve. Thank you. voilà gars yi comme ngeen gisee noonu yaa Awa Rassoul moo euh, ñëw noonu muy def entrée ci li mooy mariage royal bi nga euh, waaye gars yi ci nekk yaa ngi laaj kan mooy madame Tey madame ay leeral ci li ñu mel moom yaa Awa lakk oto yooyu noonu yëpp dina ko leeral incha allah rabi ci kanamee léegi léegi kon gars yi yéen a ngi gisandoo noonu ñu bi cortège bi dox jëm ci li nga xam ne mooy euh, bâche bi ci euh, mariage bi nga xam ne euh, tey ki nga xam ne mooy madame tey di yaa awar suuf tey moo moo ko woote kon mu ngi noog ñëpp daw na ñu jiko yaa awar a suul je vous rappelle que moo woote tey Mabor c'est évident ndax kenn dootu ko présenté ci bile milieu di milieu showbiz kon ele ngi noonu Range Rover bi gaare na dañuy xaar

ya awa rasul madame tey ba tey kenn xamagul tey bi nag la mais si kanam du ñàkk moom mu addu ci ay leeral waaye laata loolu ñu dital leen li nga xam explosive bi ci biir mariage royal bi nga xam ne euh, yaa awa rasul moo ko woote fii ci Rufisque ça sera un mariage royal exceptionnel dara du leen ci rëcc ndax Alburaax TV mu ngi fii coow li mu ngi fii li si voilà gars yi comme ni ngeen gisee noonu yaa awara suul moo euh, ñëw noonu muy def entrée ci li nga xam ne mooy mariage royal bi nga xam ni euh, madame Teyla ba tey kenn xamul kan moo teg li nga xam ne mooy yaa awara suul waaye gars yi ku ci nekk yaa ngi laaj kan mooy madame Tey madame Tey ah moom la ñuy xaar mu wàcc nañu indi ay leeral si li ñu mel moom yaa awara suul ñooy laaj kan moo ñu tey waaye dégg nañu ñu naan 10 millions la jox comme comme docteur. yokk oto yooyu noonu yëpp dina ko leeral incha allahu rabi ci kanamee léegi léegi kon gars yi yéen a ngi gisandoo noonu ñu bàyyi Range Rover bi cortège bi dox jëm ci li nga xam ne mooy euh, bâche bi ci euh, mariage bi nga xam ne euh, tey ki nga xam ne mooy madame tey di yaa awar suy tey moo ko woote kon mu ngi noog ñëpp daw nañ ñuy jiko yaa war a suul je vous rappelle que moo woon tey Mabor évident ndax kenn doon ko présenté ci euh, bile euh, milieu di milieu showbiz kon mu ngi noonu Range Rover bi gaare na dañuy xaar Wiona, no Wiona se mówi pyta. waaw kay. waaw waaw sama kese maa ngi leen doon baax na fekk yow am na yéen ñu seen loxo bi su ma leen. yaa awa rasul madame tey ba tey kenn xamagul tey bi nag kan la. mais si kanam du ñàkk moom mu andi ci ay leeral waaye laata loolu ñu dital leen li entrée explosive bi mariage royal bi nga xam ne euh, yaa Awa Rassoul moo ko woote fii ci Rufisque ça sera un mariage royal exceptionnel dara du leen ci rëcc ndax Alburaax TV mu ngi fii coow li mu ngi fii Bprod mu ngi fii ah, Yeah, yeah, yeah.